waajal loo waaj doyul ngi sant suñu supporters yëpp di sant ñëpp di sant waa écurie Boy Bambara ak waa écurie Doudou Bakassar di nuyu suñu papa bu passage Boy Bambara di ko ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko yàlla may wér ak tane di nuyu suñu coach yu fi nekk ñoom Pek ñoom Grand Mbaye Faye ñoom Peda ñoom Zil xam ñoom Tafa Boy Bambara xam gaa yëpp ak waa ñi ngi nekk si écurie bi écurie Doudou Bakassar boo ko gisee nag ñu boolu boo nag dafa rafet waaw combat bi nag nekk na combat boo xam ne def ñoo jaral lu mu jaral suñu adversaire jaral ni ko lu ko rob ba mu des faat baxanu doomu aadama waaw lépp lu ñu mun ti def lépp luy may ndam daal nañ ko def xam ba yàlla ànd ak suñu yàlla may ñu ndam yàlla moo mun kenn mënul waaw dañuy sàq suñu borom ñaan talal ñu loxo et bu ñu jullee ñu ngi talal suñu loxo di ko ñaan xam nga mu may ñu mu may ñu ndam jour bu jour ba le treize avril te loolu ñaan am nañ suñu jot parce que ñu ngi koy préparé ak suñu mbokk ba gars yi kenn fi nga war a dugg ku nekk yaa ngi indi sa xalaat ak sa idée pour lay may ndam parce que combat dafa nekk combat boo xam ne dafa war am fu mu ñu yóbbu quoi Modou Dia adversaire la comme adversaire rek sama sama adversaire la du ma wax xeeb sama naataango la sama morom la si làmb bon nag bu ñu bëree dañoo war a bëree waaye maa ngi ñaan yàlla may ma ndam si kawam. Euh, dañuy sant yàlla rek bu baax euh, di julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di nuyu fi ngeen ñu fekk mooy Saalu Kanté coach bi ak yéen ñi nga xam ne yéen a jël si ak euh, promoteur bi Prince ak ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi bàyyi xel làmb bi quoi. ñu ngi si combat bi ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom jox ñu si ndam barke Cheikh Mouhamed. waaw pour moment man si li ma nekk maa ngi si maa ngi ñëw fii matin et soir maa ngi dem suñu équipe yi di ànd ak suma ay coach di entraîner. di def lépp lu nga xam ne war na ma si combat maa ngi si entraîné maa ngi ñaandu xama moom aussi maa ngi koy étudier si par internet di xool ay combat di ko suivre kon donc maa ngi si li ma war daal maa ngi si baax a baax sax. mi suñu course ñu ngi koy def. heure bu ñu wooyee fu ñu munti woon nañ leen dem ñu jox li ñuy may ndam ko rek si digg bi le reste si digg géew doon sama diggante ak moo jël li fay des ñoo ñoo ñoo ko lu luy jëm si suñu kos yi li ñuy digal loolu la ñuy def fu ñuy yem la foofu la ñuy yem décoration benn nekk samay entraînement yàlla mayoo ma combat année passée sama diggante ak armée yàlla may ma si ndam loolu yëpp gëm sa bopp la ak ñàkk bañ a découragé parce que météo na daal météo na météo me dañuy teew dañuy jàpp fi ñuy jàpp rek gëm suñu bopp di liggéey laqat suñu ruq di liggéey noonu lañ ko defee si combat bi tam dañuy laqat suñu ruq di liggéey ak suñu course di nuyu waaru passage sama waa Saal di nuyu course course papis ak course Mamor ak ñoom Abdallah ñoom Tewo ñoom mbay ak Mami Dig Sarr Serigne Dick sax maa ngi nuyu ñoom ñëpp di waa salle bi. Ah, man avant làmb ji maa ngi entraîné parce que man làmb mooy sama métier maa ngi entraîné matin soir maa ngi doon nekk parce que bokkuma mbër yu nga xamante ne tey bu ñu amul combat du ñu contact wala bu ñu amul combat du ñu entraîné man loolu la ma ñëpp xamee. te si loolu laay nekk ba ker baa may bàyyi làmb ba xooli leneen kon donc bu fekkee état de forme moom dama siy nekk à chaque instant baisse de forme na am parce que forme neexul téye quoi mais en pour ce moment moom may préparer combat mu des mois. alhamdulilah quoi am yaakaar bu baax sama bopp. mbër kenn du ko xeeb moo jël su ma ko doon xeeb tey du ma ko jël du ma ko xeeb respecté ko moo tax may yeew fajar di dem ko moo tax. parce que dama ko jox cër adversaire bu ma jox cër la dafa def ay problème si làmb mu ñëw sëgg ñu war a bëre waaw maa ngi ñaan yàlla nag yàlla may ma ndam. waaw simple bi ma commencé dugg parce que mënatuma la ban année la ko parce que doon fond si mbapat yi suñu di teg ay mbapat di teg ay saaku ceeb xam ma si jël suñu ne demoon naa ba suñu dëkk drapeau man drapeau ma moo si nekk rek man maay doon bi maay